ñooy sàcc ñoo far ñoo koy jënd dañuy daan seen doole ñoom daan doole am na heure daan doole am na limite mais mënoo teg ay table si tali bi nga ne fi ngay daanee sa doole bañuñu loolu ah ñoom ñëpp a ngi nii déggoo déggoo kenn ku ma ne li ngay wax ay fen la déggoo kenn xaaral ma pare kilifa xaaral ma pare après déggoo déggoo kenn ku ma ne ay fen la ñun ak ñoom

mairie bobu ñuy wax tay ñom mairie bi ñoo ñew dëgër piir leen jeune Colobane bu liggéeyul ci mairie bi est-ce que sañ nga ñew fekk table commerçant di ka daaj ji ko def mairie bi lan mo doon encaisser sen xaalis mairie bi mo leen dëgër piir ba paré tourner ne leen jeune Colobane yi ñoo dindi sen table té ñom bu ñu waxee seen dëgg wax sen akolaay taala gis nañ ci maire bi gis nañ ci adjoint maire bi ñeneen ak ñeneen teew ñu dindi seen table yi nekkoon si kaw place ñuy nekkoon du mois si tali bi dindi yi nga xam ne moo nekkoon si occupation voie publique bi taa xoolal ay cantine ngi nii soxna si tourné lii jëlal leen ma ko vidéo lii cantine yi jëlal leen ma ko vidéo est que dindi nañ ko dindi wuñ ko tourné waatal nii fii ay hôpital day am moo xoolal hôpital bi day am moo pour ñu génnee xaaral pour moo bi problème la parce que fee yëpp dañ fa daajoon ay table waxtaan day am wax dëgg ba ñu ñu ko liggéey mais sa liggéey teg ko si respect. tournel fii fii lan la. fii lan la ah waay bàyyi ma ma yëgal fii lan la place la est-ce que est-ce que dindi nañ ko est-ce que dindi nañ ko non damay yëgali de may ma ma yëgal lii li ce li li lii ay li la lii ay place la ah yéen ñëpp teg ngeen si seen bët est-ce que lá nañ ko ah jëlal ma vidéo bi loo gis ay tamitu table

SM ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ay ay ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, man si ben, bi ben, ben, ben, si ben, bi ben, si ben, bi sama papa ben, sama yaay ben, si ben, bi ben, si ben, bi ben, si ben, bi ben, ben, ben, ben, fi am du fi gan pas ben, ben, ben, ben, ben, maîtriser li may wax xam

collectif des lëbu la ñu ne ñoom ñoo moom terrain bi mais collectif des lëbu ñu moom dafa amoon limite muy benn miir boo xam ne dañ ko def mu jëm ci biir miir boobu collectif des lëbu ñoo ko moom mais sibiti terrain bi terrain Colobane la lu sam papa bi kubalee góoloo fa ay année dox

ah Sonko li ma koy lancé mooy que ni ñun biñ ko soxlaa ñun jeune Colobane biñ ñu soxlaa dañoo jug ñun ñu soxla ko mu war a ñëw ñëwul bi mu ñëwulee toog ba tey ñu daje ay table ci marché bi mu yagar yagar du ñëw ñun dañu naan dafa am fu mu féete te je Sonko dafa am fu mu féete moo tax mu teg tànkam Colobane suñu terre nañu ci dimbali ñu jot ko nous bi am ba suñu buntu yi ñun suñu yaay wala suñu papa mom bu fa fekke ñu tek fa mu déborder nañ ko dindi loolu sommes def ndox ñu jël na jël mom pas deugal sommes na loolu bu mu ragal dara ba na jël jël exemple si maire maire bi nekk fi Abdou Aziz Paye dafa fou day wax signal gauche droite

ñun terrain boobu la ñuy kaas tey collectivité bi nee na décret moo lañ ko jox décret état moo lañ ko jox acte droit décentralisation moo jël terrain boobu dugal ko si mairie HLM donc kon ko décret moo ko jox ñu ñoo gën a yeyoo si décret bi. Ah, seen combat bi jot ci terrain bi kañ ngeen ko commencé woon. suñu combat pour jot bi yàgg na parce que ba ñu commencé gis ñu commencé def déguerpissement ci terrain bi ne insalubrité ak insécurité moo leen tax a jug ñun dañu ne woon sant yàlla

parce que ba déguerpissement bi amee période Diomaye Sonko la mais sommation match, ñu jox le 26 janvier la xam kon jiitu na leen def nañ vendredi rouge def nañ ñetti vendredi rouge def nañ ñaari sitting bu wax inhumation waxu terrain bi fii droit de l' di droit la am na épanouissement vacances yi ñu jot suñu doom yi fa lañ il ci tali bi mais tali bi oto yee fiy jaar xam sa oto yi dafay jaar parce que mënuñu jaar ci yoonu Mathiam na Mathiam dafa xat embouteillage ndax commerçant ñoom ñoo ko occupé loolu mooy yoon moo tax ñun suñu xeex ñoo na xaale ci lii tey instant yi am na fu ñoo xam ne ñu toll Colobane ñaari problème dafa xat mënuñu nooy suñu terrain dañ si bëgg a jot léegi léegi est-ce que jamono yi ñëw ñu def sitting mais mais di di sitting sitting nañ ba pare li ñuy def instant yi mooy focus focalisé wu si jotaay bi ñu war a am ak jomaay wax ko ñun suñu terrain la ñu soxla xale yi dañoo war a épanouir bind nañ ba pare tontu demandé nañ doñaax ba pare dañ ko fi seegul rek ñoom rek la ñuy dégg tey loolu la ñuy soxla message boobu la ñuy bëgg a lancer waaw jëlal ko. salaamaaleykum doomu gox bi la ñu. fii la ñu juddoo yaroo fi màggee fi ñun li ñuy xeex ñun xeexuñu place bu réglementaire place bu réglementaire ñun duñ ko xeex mais tali bii billahi wallahi wal kitaabi ku fi tegati taabal billahi suñu bakkan lañ lay jaay loolu dañ ci pare xaaruñu ci police xaaruñu ci gendarmerie xaaruñu ci mairie taabal bi tali bi nit dootu fi lal taabal loolu mooy dëgg place yi réglementaire a ngi nii laaluñu ko amuñu ak ñoom benn problème amuñu ak ñoom benn problème mais dañu bëgg voie publique bi nañu ko bàyyi. ñun fii dañu war a dox. hôpital a ngi nii école a ngi fii tout près école bi fekk nañ ba muur ko kenn mënatul jàng ci école bi normal am na école kay xool ko. école baa ngi nii la xale yi taxaw lii école li hôpital la lii mooy école fi ngeen taxaw ne ay mbaar ñoo fi nekkoon fii fii bi ñu ko bi ñu fi taxaw. loolu moo dul yoon merci